maa ngi lay nuyu. dégg naa la lu bëri. bilaay yow fi daw fee sant yàlla bu wér. ñëpp ñoo taxaw ne année bi nekk na at boo xamante ne seen journée bi ba ma si journée bu neex dàq si ci maam lamb yi fi am yëpp tey ba nit ñi ngeen am. maanaam man làmb lu si neex lépp man dama koy joxe. billaay walaay taala amul mbër bi takk ngeen boo xamante ne nii yow yaa ma gën a joxe lu làmb di laaj. Eh, man làmb su ma si duggee dañuy xam ne Laurent ñëw na. te eh, daa am loo xamante ne man yàlla ma ko jagleel bu si man. làmb su naroon dee sax maa ngi si dugg du mus dee. billaay walaay làmb daa suruxoon man maa ko delloo palaasam. man maa tax xoolal média yi fu ne ku di TikTok di wooy mais maanaam tamit xam nga gars yi dañ see war a jàpp am nga loo indiwaat quoi loo xamante ne gars yi ko doon da ngay jënd gars yëpp dañuy daw Laurent ah, Laurent a di bëre tamit waaw àdduna ñëpp xam la amoo jàppale dafa métti dëgg la dëgg la jeexal tàq yoruma dërëm na gaa jàpp. ku ma jàppale ma doon champion. barki yàlla. dëgg la billaay ku ma jàppale. ma doon champion. mais aw ma jàppale dafa métti sama côté torop billaay. dëgg yàlla yow yi victoire bi. victoire bee day xaar. bu liis bi. <laughs> day xaar. dëgg la gaa dañoo toog di xaar. lu ñu waroon def yëpp def nga ko xaar te man góor naa du ma tas yaakaar yàlla na ma yàlla dolli sutura bu baax a baax bilaay mbokku njaago yi ñu sa ginnaaw waaye maa ngi woo ñëpp bilaay di woo njaago yëpp gàndele ak kapp ci pekk ci di woo ñëpp yàlla bëri na daal yàlla na ma yàlla taxaw may ma ndam